bokk ni bàyyi xel di ñëw seetaan oto bu weex bii ngeen di jàkkaar lool di 4 x bi mu ngi fii ci buntu kër Serigne Ganna Messere Maxtaar oto bi nag bokk yi moom la kenn ci mbokk taalibe yi jox Serigne Ganna Messere Maxtaar ci waxtaan wi mu doon amal fële ca Géejawaay ci koor gi yemook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril euh, di guddik euh, dimanche gi démb foofee nag la doon waxtaane Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ba kenn ci mbokk taalibe yi Serigne Maam Cheikh Fall lay wuyoo jox addi ji Serigne Ganna Messere bokk ni bàyyi xel di ñëw seetaan oto bu weex bii ngeen di jàkkaarlool di 4 x bi mu ngi fi ci buntu kër Serigne Ganna Messere Maxtaar oto bi nag bokk yi moom la kenn ci mbokk taalibe yi jox Serigne Ganna Messere ci waxtaan wi mu doon amal fële ca Géejawaay ci koor gi yemook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril euh, di guddik euh, dimanche gi démb foofee nag la doon waxtaane Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba kenn ci mbokk taalibe yi Serigne Maam Cheikh Fall lay wuyoo jox addi ji Serigne